monsieur le maire moom alhamdulilah dañuy sante yalla ci mom à chaque fois parce que tay suñuy dom, domam ak suñuy dom ñun ñëpp je pense que né day xalaat chaque jour sen jang. chaque fois li muy wax moy éducation xalé yi mom moy sama base li ma souhaité ci sama aduna moy qu'il y ait des doctorats bu ku ci nek bu ñew week-end doctorat yu bëri ci rew mi ba nga xamant dëkk dëkk bi ba nga xamante ni tay problème yi muy yenu mom kese ñu bari nañ ko mëna a yenu tay nak bo gisee li ku ne xam na ne bac moom premier diplôme universitaire donc comprendre xale yoy qui seront des futurs cadres teel leen accompagner mais teel leen woon aussi il faut qu'il y ait que bo démé bo sa beut bënn il faut nga dellusi pour dimbali à la base parce que lui c'est ce qu'il est en train de faire ça boko ko nga xamné ya a rien politique ay suis citoyen, la mais noble pour accompagner la jeunesse conscient d'abord nous conscientiser mais nous xam aussi war rendre la monnaie donc donc sur ce ci la à chaque fois à chaque veille d'examen te yemul 83 villages 83 villages yooyu ku ci ne xam na village centre bi ci au moins dina un midi dem kër pour 14 heures leen di je pense que loolu aussi su ñu amee nag ku conscient koo xam ne ci poosam lay jël ne man kat ba may jàng xëy na aw ma woon lii mais yoon la ma dimbali xale yi pour ñu nekk ñoo xamante ne nii tey bu ñu génnee fii ay cadre lañu doon mais cadre yu conscient parce que am na solo aussi ban cadre mooy kadr bi nga xam ne nii da ngay xam fi nga jógee soo paree yow nga rendre la monnaie je pense que c'est ça ce qu'il est en train de faire à Latmingué pour que ñun ñëpp ñu xamné ne Latmingué meilleur bi day nek ku ci nek sacrifice bi ngay def pour mu ñëw. dañuy rafetlu li nga xamanteni monsieur le maire docteur Makumba, def nako ci centre bi pour accompagner ñu pour que ñu mën réussir examen yi ci conditions yo xam ni conditions yu bax la. waaw c'est vrai que école élèves yi nga xamanteni ni dañoo dëkk ci ay euh, zone yu xaw a sori xaw sori lycée bi doon na metti ci ñoom ñu composer le matin wàcc war a dem añi ñëwaat. mais docteur Makumba, au moins contribué na ci côté bobu mettre na ay moyens ba nga xamanteni ni yi man nañu yendu ci école bi man nañ fi añ et puis ñu respecter waale mesures barrières yi ci ni ñuy agné bu ko défé après euh, ñu mëna continuer sen examen lool aussi ñu ngi koy saluer di ko remercier. docteur nyu ci lu ñu si jappalé comme tay nee ñu déjà buñ ñëwee jox nañu ay masque lolu ben ben jappalé la. aussi togg na ay añ aussi gis nga sànq ni gars yi di yóbbu palaay pour ñu waaj a ni